nuyool Fallou nuyool asalaamaaleykum. moom nag toog jàpp ñaaw rek jàpp. Fallou boo bëggee nuyoo nga nuyoo. jarul Fallou nuyool. Fallou asalaamaaleykum naan may saamin toog jàpp diine rek jàpp sa ñaaw. Fallou nuyool bàyyi jàmbur. non jarul nuyoo toogal Fallou. eh bàyyi jàmbur Fallou nuyool. waaw ba lu wax bàyyi ma. bàyyi naa la Fallou bàyyi ko da nga bëri wax. waaw bàyyi ko bàyyi ko mu nuyoo. Fallou nuyool waaw oh, suuf yow. amee problème 200. 200 waaw 200 yooyu mu ci man. ci Pape Mbaye xaalis bu ma yoroloon euh, fay ma ko cinquante yi nga jëloon sànq ah. waaw cinquante laa jëloon sànq. ok d' accord lii am. ah ko jëloon cinquante. Ah. <laughs> les lampes arrêtez-le s'il te plaît. <laughs> jël na cinquante nii mais da natt. <laughs> moo tax waxi dof moo neex ci réew mi waxi dof ku ko bàyyi. Ah. ma ne du ma ko bàyyi. waxi dof ay 1 million ay téléphone ay waxi dof ko jéem a xëy yàlla na génn àddina ma ne ko bàyyi ci laay fanaan ci laay reer ci laay añ ci laay xëdd parce que waxi dof il est million léegi waxi dof plateau 1 million. iPhone sangu piste naa si. 400 yu ne muur 400 yu muur si man. ci waxi dof. si waxu mankan kunkan. <laughs> Eh, xam nga neex. neexoo xewi nga 400 500. paa 500. yow léegi paa nga paa bu xewi 500 ndax jëloon naa kii. te da ngaa jabet demal hôpital suba. ayca man ah da taxawal man kenn ma vuruñ man. <laughs> ok bismillah la moo des. Nourou Lassou. ah. laa la cinquante yi nii. nu la d'accord. sama waa ji kenn du moom. Hmm, kenn du <coughs> eh, baa ngi nii kay. ayca ayca sans ci Pawlish Mbaye. <coughs> dama koy bëgg a may fàllu parce que doy ma ko dara voilà. jëloon nga 150 ah. 200 ah saa ah, yi. <laughs> te nga fay boru jàmm Paulus Mbaye. arrêté na bu ma ci yeggee ba baal yorob bopp 23500. 300. <laughs> Mami Diallo amee nañ ko 12500. Mami euh, Diallo ngeen sax essence li mu la abon sànq. Mbori station ba. ci àdduna boo commencé teg commencé boo di commencé. waaye lii xaaju dof la ne ku ko lekk da ngay dof. xaaju dof fii ku ko lekk da ngay dof su ma la ko mayut. merci chéri. 400. merci. 500. 500 ci waxi dof. 600. 600 ci waxi dof moom solo. 700 ay waxi dof ku ko xeeb. non non lii téeméer na ma non te faire. waaw mais ci ci benn ko delloo. non non non arrêté jëlal lii. wax ko xaagane. non 10 000 boobu ay waxi doo ko wax xañ. olis teel lii ay ko waxee. maa ngi ci ñaata. 400. non man. waxi ko bàyyi loo yaa na génn am na solo de. ay waxi dof. li nag yow 150 000. maa ngi gërëm c'est le travail qui me manage. Afia Afia 150 000 euh, si yow euh, euh, Ngone 250 nga xamante ne moom mooy ak lan. Ngone yal na yàlla fay sama xarit. yal na yàlla fay sama koo xam ne Ibrahima automatique. juum naa astafurlah Ibrahima automatique Ibrahima auto mobile. nuyoo bisu nee na dafa bëgg nuyoo. da bëgg nuyoo. bisu foo mu àggale nuyoo police am sa enveloppe. am sama tel police noonu am sa enveloppe bi la andi. indil. teel ni ayca. merci. nga ne Sénégal émergent jox man de dama ko kii bon de couture la ah nguuda ay yi seen bon de am. Fallou teel xo bisu xool ñu ay bon ñëpp a ngi may woo. ayca <laughs> ñëpp a ngi may woo ñu ngi amee bon waaye eh, eh, eh, Ouzin Ka Fallou dama jum am na 50 bi ma la mujjee jox abal ma woon la. lala 50 bi ma la mujjee jox. lala. pour bori neen ba amee fekk ko sayo nekk maa leen di fay ndànk ba ndànk étape par étape bisou va te faire des salami <laughs> wala waxee dof ku ko xeeb ku ma ko xeeb jox ma bu sachet yooyu papa Ndiak euh, maa ngi lay ak kokki amir parfum kan laa jox kokki yal na la yàlla fay soxol eh yal na la yàlla soturaal ay kenn du buuna na la yàlla fay soxol